muy koo xam ni dundam yëpp ci lii la ko def bari na ci njabootu sëriñ bi ni ma leen doon waxe léegi fii itam daara la bari na ñoo xam ba bërki démb rek sëñ Cheikh Awa Balla bi muy wax fii mi ngi xam xamle ni sëñ Afi mi da koo jàngal kon ci liggéey boobu la nekk bañ ne sànq itam bi sëñ Bass wootee sànq ba jot sëñ Ablaat dama ko ni sëñaafi Afi allah daan ko fa fekk ndax fàttaliku ma fu ma julee timis jumaa Tuubaa te jiitewul ma <laughs> te yaakaar naa ni incha allah ñi ngi ñaan loolu yàgg lool kon ñi ngi tàmbalee nuyoo beeg ziar bi ci moom tànk yi nag mu mel na ñaar la ñaar ñiit li ko waral mooy taxawaayu daayira mu xadamatul xidma bii nga xam ni ci ndigalu sëriñ Saaliwu la amee woon amin amin woo xam ni itam dafa mel na lu mënul woon ñàkk ci dëkk bi la bi ñu amee taxawaay boo xam ne war na am ci jumaa ji sëriñ bi moo jox ndigal daayira bi ci njiitu sëñ Afi mi ñu am ko ci jumaa ji di toppatoo sàppe yi li wër jumaa ji bu njëkk boo ma saan màggal si yenn saay sax nga gis fi loo xam ne du la neex loolu yëpp li tax kenn gisatu ko fi loolu yëpp seen taxawaay la biñ demee itam ba xalaataat yeneen liggéey lu mel na ñuy def bayaan ci jumaa ji ndax du fi woon cosaan biñ ko demee sàkku ci sëñ Saliou mu joxe ci ndigal loolu itam gis na ni ba mu tàmbaleek léegi wax dëgg yàlla yokkute rek ndax bare na ñoo xam ni bu nu ñëwee déglu ñiy def bayaan fii la ñuy toog daan fi jëlee njëriñ moo xam ni doon na jar sax ñoom ñu ñëw julli si jumaa kon loolu di beneen liggéey bu am solo boo xam ne ba tey ci liggéey daal Moukhaddamatoul ma la ku nekk xam nga ni itam bokkul woon ci cosaanu jumaa ji bu weeru koor jotee bés bu nekk ñu fiy waxtaani diine te bés bu nekk itam daan ko wutal thème bu ñu waxtaan loolu itam biñ ko sàkkoo ci sëñ Saaliw diggante tàkkusaan ak timis mu joxe ci ndigal loolu it ci taxawaay taxawaayu daayira Muxaddamatul Xidma gii la yamuñu ci loolu lu mat fukki at wala lu ko ëpp ngi nii yoo xam ni ni ngeen yéen bërki de mi ngeen jógee a Munawara ak Makkatal Mukarrama nañuy def altine ak alxamis ca ndogu ya ak weeru koor jumaa ji fi ngeen romb léegi fi ñu duggee foofu yëpp dañ koy lal lal yokk bi yëpp dañ koy lal ay junne ñoo fi ndogoo loolu itam biñ ko biñ ko biñ ko biñ ci laaj laajee ndigal sëñ bi ànd ceeg ñoom ak yeneen liggéey taxawaayu ñi nuy waaye dawlu yi morgue bi fi nekk ak ba ca fee nga xam ni moom moo di bàq ya taxawaay bi lépp mi ngi ci loxo daal Moukhaddamatoul Khidma kon mbooloo la moo xam ni képp kuy jóg ngir taxaw ci dara ci lislaam rek faaw di nga jokkoo ak ñoom yàlla dogal nag lii nga xam ni ñaari taxawaay yi nga xam ni euh, sëñ Yaafi mooy sunu teewaayu tey jii benn bi El Omar dana ko leeral. mooy concours alxuraan bi nga xam ne at mu nekk dañ koy ànd ak yéen délégation bu mag moo fi jóge at mu nekk di ñëw ci concours bi di ko ànd ak ñun ndax xam na ni seen mbir la ndax sëñ Ablaye Ablaye Ablaye Dia mi koy def bëgg ak alxuraanam ak xam ni doomu daara la waaye xam ni itam sëñ Tuubaa am na jagle ci alxuraan te moom gëm na ni itam li ko ci xiir ak lii mu ciy def ak li mu ko jaral xam na ni sëñ bi moo nam mu wane bëggam ci alxuraan ak nun gën a war a taxawee ci alxuraan kon looloo tax at mu nekk ngeen nangu loolu nang ko ànd ak moom itam beneen taxawaay bi nag mooy bu ngeen fàttalikoo ay at ci gannaaw ànd naa fi maak moom keroog fi la ñu ndogoo gis mu gisal boppam liggéey bi te booba daan na jaarale rekk barkeeloom ci magam maam Anta wala ñeneen ñuy ñëw di barkeelu ci liggéey bi waaye keroog bi mu fi ñëwee ba léegi jógul di wax ci sunu nopp ni liggéey bu amee nii solo barewul foo koy gis fii ci réew mi ndax moom lu ci ëpp weeru koor màkkatal mu karama la koy nekk ba tax na saa su koor gi ñëw itam xelam ak xalaatam yópp donte ñii doy nañ ma seere fan yi yëpp li ëpp ci ñun ñi ci mbooloo mi ñi ngi séddale daanaka lu mat junney tonu ceeb ci biir réew mi ci daara amul benn région ci senegal boo xam ni ceeb boobu yeggul ci yow xëy na nag mënoo daj daara yëpp ndax daanu moom dajul fépp waaye li ëpp ci daara yi fu ñu dem président fédération ba wala ka fa nekkal fédération ba la ñuy woo mu ñëw ñu ne ko yan daara nga recensé daara daara bu nekk dana am nangami saaku ceeb ñii nangam saak nangam saako te loolu yaakaar naa ni lu am solo la ci weeru koor nit tu woor ba pare xelam dal ci dana am lu mu ndogoo loolu lu am solo loolu li tax ñu leen koy leeral sëñ Afia ngeen doolee ko ñaanal itam xam ni mi ngi def kéemtalaay kàttam kàttanam ci dimbale jullit yi liggéey bii nag boobaak léegi muy jaarale ci sa sëñ Bas mu sëñ Xaadim Awa Ba moom ak taxawaay bi ak yéene gi mu am fii gis nga bi ñu xamee ni fii laaj na sécurité danaa leen wan léegi buñ duggee ci régie bi lu mat juróom-ñaar fukki defe naa caméra waaw am na fi wër jumaa ji fi toll nii bu ñu duggee fii bunt ba ñu duggee ak foo mën a duggee ku taxaw ci jumaa ji ñu wan la ko fii loolu yëpp sëñ Bas ci moom la jaar Alaaji Ablaay Ja moo ko def nga xam ne ni ngay nekkee màkk boo duggee seen studio yi gis li wër kaaba gi yëpp Medina kazalika naka noonu loolu itam defal nañu ko fii kon loolu itam taxawaayu sëñ Ablaay Ja la te sëñ Bas la jaar lii itam moom moo ko daan indi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 mi ngi koy dugewaat ci liggéey bii nga xam ni mooy liggéeyu ndogu yi nga xam ne moom la ñu def fii ci jumaa ji baneen liggéey bi nag euh, sa Alaaji Omar laa jox moom mu leeral ko ak taxawaay bi nga xam ne yaakaar nañ ko ci daayira mu xadimaatul xidma waaye di leen feddaliwaat daal bu baax euh, ñu ngi feddaliwaat bu baax euh, kóllëre gi diggante Alaaji Ablaay ci boppam ak comité bi nga xam ni muy fédération sëñ daara yi ak mbooleem ñi nga xam ni ñoo seq liggéeyu concours alxuraan bi di feddaliwaat seen diggante ak daara muxadamatul xidma waaye di feddaliwaat itam ah, diggante bi ak liggéey bi nga xam ni moom la daayira Muxaddamatul Xidma te lenn rek laa ci tudd lenn laa ci tudd muy liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey fii ci dëkk bi ci Touba sëñ Babacar Cissé mi miin na leen bu baax a baax ndax màggal Touba jotee itam sëñ Bas mu sëñ Abdou Khadir mi yor Euh, organisation màggal gi kenn doyu ko ci gan yi lu dul daayira mu xadamaatul xidma ak ñeneen ñi leen ciy jàppale loolu yëpp di ay taxawaay yoo xam ni wax dëgg yàlla ñu ngi feddaliwaat bu baax àndandoo gi di ñaan itam sunu borom yàggal fi sañ aafiya ak mboolem ñu koy jàppale ci liggéey bi ñu neen ñu yàgg seen gannaaw yàgg ànd ak yéen li nga xam ne mooy liggéey bi alaaji Omar nga leeral nag euh, bareen jeego bi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi diin samaahata cheikh ñu ngi lay nuyu te di la ziyaara di nuyu waa daayira bi waaye di nuyu comité bi yëpp ñu teg ko nag ci nuyoo bi ñu nuyoog sëñ Muntaxa léegi sunu loxo yi ñu jox ko loxoom yu tedd yi sunu jëmm yu defanteeg mu aayana jëmmam ju tedd ji ziyaar biñ ko ziyaara it ñu ñaan yàlla barke ba law ba dugg sunu jataay bii lu fi motoon a wax rek sëriñ Jili ñang wax na ko seen njaboot muy taalibeeb sëriñ tuuba waaye di ab jullit bu gëm alquran waaye yàlla natt ko mu bëgg alquran am yéene ju rëy ci liggéeyal téere yàlla bi sun borom subhaanahu wa dara la ko nag lu ibtiqaan li wajhillaahi alkarim muy cheikh alxaaji abdoulahi Dia concours alxuraan boobu nga xam ne falay jaaree di dooleel daara yi di suqali daara yi di leen dimbale waaye di leen encourager ñu gën a jàng téere yàlla bi di ko mokkal di ko tajwid di indi adaa ak axkaam yi ba tey Sénégal nekk fierté bu rëy ci alamul islaami yi jéego yooyu moo ñu tax a jóg ñuy wër mbooleem këru diine ji la tàmbalee fii ci tuubaa ba ca Tiwaawoon ba ca Njaasaan Ceneba Medina Baye lew na ñaseen kër maam Cheikh Al Hadj Omarul Foutiyu ak mbooleem kuréel yi nga xam ne dañuy yëngu ci lislaam yépp Ablaye jox delloo na leen cër bi xam ne lii kat da cee ànd ak doomu daara yi di ci dox waaye kilifa yi diine yi ñoom ñoo ko moom rawatina daara yu mag yu mel ne daara ji tey ñu toog loolu moo tax tey ñu ñëw ci sëñ Muntaxa waaye déglu nañ juróom-ñaar téeméer yi ndongo walla sax ak ay kaang laa wax parce que ñoom ñëpp mokkal alxuraan ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci réew mi ci 46 département yi def ci ay moyens yu ko jar def ci temps def ci xam-xam def ci matuwaay yi ci war a def yëpp juróom-ñaar téeméeri kaang yooyu nag tànnaat nañ ci juróom fukk ñoom lañ fas yéenee déglu la 14 la 11. ak le 12 le 13 ak le 14 ci institut islamique bu Dakar bu ñu fa jógee le 15 ak le 16 am na faru international bu mu ci boole ren muy fukki pays ak ñeent fukki pays ak ñeent dinañ ñëw fii ci réew mi Sénégal bokk ci muy fukk ak juróom ñoo ñëpp dañu bokk ci international bi loolu muy innovation boo xam ne bu rëy la Euh, defuñu ko lu dut gën a dooreel alxuraan rek ndax yi muy téere yàlla bii nu ko gën jullit ñi gën a fonke seeni mbir di gën a jag ci àdduna ak ci àllaaxira loolu moom fa di at yi yëpp moom gis nañ ko li ci des sa njili wax na ko Ablaay fii la bokk Ablaay amul fudut fii Tuubaa la gëm Tuubaa lay noyyee am na ñëpp nag wax dëgg yàlla fu ne nag ma ngi fay def loxoom waaye lii mu defit muy participation ci ndogu li dafa jaadu ñuy sàkku rek ci yéen ngeen ñaanal ko yàlla yàlla yokk fanam waaye yàlla sàmm ko sàmmal ko alalam waaye yàlla aar ko zahiran wa baatinan sëriñ bi daal gudd gàtt li moo doon waaw kàddu yi euh, le 17 nag mooy cérémonie officielle bi bi nga xam ne moom la ñuy teral ndongo yi ca grand théâtre bu 9 jotee la ñuy fas yéene tàmbali liggéey bi bu 14h incha allah mu jeex li ko waral rek mooy élection yi nga xam ne xëccaat nañ ko te ñun le 24 lañ jàppoon ñu ne woon nañ ko fexe lee bañ a yàqal ci lii dara ñu def ko incha allah le set nit lañ ci daan wooyee ñu ngi leen ciy woo ngeen gunge ko ay ñaan. bu bis bàyyi yàlla ma man may mu mën koo teewee mu ñëw teewee ko àndanti ko ak ñun ah ren nag naka jekk yéene ko moom waaye ren da ngeen ko gën a moom ndax Serigne Saliou Mbacke radiyallahu taala anhu moom lañ dippee bis bi moom lañ ko tuddee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa mawlana muhammadin il amin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin asxaab alfadila samahat alcheikh abou samahat alcheikh sëriñ omar sëriñ omar sekk samahat alcheikh eh, sëriñ babacar sise jaamal ñoo ngi leen di delloo nuyoo ci sunu kilifa gi toog di sëriñ Afia Bousso di am mbégte nag ki dalal leen ci jataay bii euh, Cheikh Abdoul Khadir mi ngeen àndal nag boo gisee tuddaale wu ko ci tàmbali bi ni ngeen àndeek moom ñëw ni la leen mën a dalale fii ni leen leen war a dalale fii noonu it la leen dalale fii kon moom ni mu bokkee ci yéen nu ko raw la bokkee ci noonu euh, kon moom ci ñiy dalalaate la bokk. ñoo ngi leen di delloo nuyoo bu baax di am mbégte ci seen jataay yii ngir sëriñ Abdoulahi mi nga xam ne tànn na délégation bu jëm si fii dafa mel ne dafa tànn tànneef boo xam ne bu sedd suñ xol la ndax ñaar yëf benn bi mooy sëriñ Omar fee nga bàyyi ko di njoosi fala sunu maam soxna Farmata Seck mi jur Ahmadou Farimata ak Thierno Farimata bàyyi ko ñëw naa ci dëkk ba ci ndigalu sëriñ Bassirou moom Serigne Abdoul Khadir ci gàmm guñ fa doon def ba mu fa ñëwee mbooleem sunu maam yi nga xam ne ñoo njabootu maam maaram ku ci nekk joxoñ nañ ma ne dëkk bee la bàyyi ko dëkk bee la sa soxna wañang bàyyi ko dëkk la soxna nangam bàyyi ko soxna nangam bàyyi ko ba ñoom ñëpp jeex kon foofu lañ dëkk ñun mm-hmm. kon ñu am mbégte ci sa yoon wi loolu ndax dangay ngay ñoon ñu yow jaamalit ku ko xam xam Touba xam ni nga xam ne noonu lañu ñu àndee ci liggéeyal yàlla ni ñu àndee ci sàkku xam-xam ñu bari ci njaboot gi jàngee foofu ci ñoom loolu it danga xam ne kon seen tànk yi tànk mbégte rek lay doon ci noon kon sëñ yi ñu ngi koy sant bu baax ci tànn gim mu leen tànn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 moom am na ci cër bu mu war a taxawee moo taxawee kon nam ko war a taxawee kon ci wàllu googu di wàllu liggéey bii nga xam ne ñu ngi ko fi yàlla ci toolu Sëriñ Tuubaa bi ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm bu baax ay taxawaayam nag yemut fii ni ko sëñ Abdul Xaadir waxee hmm. bépp taxawaay boo xam ne xam na ne yitteel na barab bi lu mu man lu nekk mi ngi koy def te lam cey def di ko jaarale Serigne Basirou Mbacke moom Serigne Khadim Baba it mi ngi egsi ni mu war a agsee Serigne Khadim Serigne Basirou it nekk ko am taxawaay ci barab bi barab bi ñor ko lool itteel ko lool waxtu wu ne mi ngi xool luñ fi war a def lu fi yaadu lu ci man taxawaay moo xam muy koor gi moo xam muy gàmm gi moo xam muy màggal gi moo xam muy leneen lu mu mën a doon lépp lu ci man rek ci ay taxawaay daf koy def waaye di ko ànd xaritam yooyu te sëñ Abdoulahi moomu bokk ci. bokk ci ñi ci jiitu itam. gën cee bokk ci ñi ci gën a ràññiku itam ci aw doxin. kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm liggéey bii nga xam ne nag mooy. alquranul karim alquranul karim day tool boo xam ne eh, toolu mën nañoo wax ne toolu seexul xadim na boo xam ne naka jekk daf cee mas di bay lu ne wax na ko ci alquran kitaabun karimum min karimin mukarrimin li abdin karimin nawara sarqa wal garba kitaabun bihi masaktu mustagniyan bihi gariban wa ansaanil musibati wal kaaba loolu ba mu nekkee ca jamono yi mettit metti la ko def ma maasikan bil kitaabi maska dariri bi yadil qaidil bashiril muayini kon nag alquran mooy léppam moo ko féete fépp kon képp ku ci yëngu moom nga ci yëngul yaa ngi yaa ngi def itam lëm gën a bëgg kitaabullahi bostaani it wax na ko kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab la jamu fiddatin wala jamu dahab loolu it wax na wax na ko bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi dahabin mawruusi kon léppam alquran la lim jàpp ne moom lañ koy doon it mooy alquran kon ku cay liggéey moom ngay liggéeyal kon nag liggéey boobu na yëg ne xolub murid yëpp sedd na ci ñi nga xam ne xam nañ bëggug Sëriñ Tuubaa te di ko dàkk ñëpp seen xol sedd na ci waaye xolub jullit yëpp sedd sedd na ci ndax loolu euh, suñ borom moo waxoon ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun wattu googu nag lii ci la bokk fexe ba nit ñi xemmem ko di ci jëm di ko wuti di ko gën a fonk ba ndax pexe yi noon yi nas mooy nocce alxuraan ci dënni jullit yi waaye jullit ñoo am war a am fu la jutool ne ji sëriñ Abdoulaye ja am te mooy jëmbat alxuraan ci xoli jullit yi xemmem loo leen ko ñoom ñëpp ñu xemem ko bañ gis ne ci njàngum alxuraan mi man nañ cee amee leneen lu kawe lu kawe lu ñeneen di amee ci leneen. Hmm. loolu nag taxawaay bu am solo la bu rafet la boo xam ne ñu ngi koy rafetlu bu baax nag ñu ngi koy ñaanal. Euh, ci barkeb Cheikhul mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal hmm. suñu borom gën koo jàppale hmm. gën koo dimbale gën koo taxawu gën leen a dimbale yéen ñi koy jàppale gën leen a taxawu gën leen a dimbale itam ba lépp lu ngeen soobu ci liggéeyu yàlla bi ngeen mën ko àggali ci sa ko dem yàgg lool nag ngeen yàgg di ko def ay at yu bare bare bare bare ci kanam ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di balu ak itam ci jataay bu xaw bee yàgg jër ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaw xam naa euh, loolu moom woote boobu moom daanaka jërta xumb jërta euh, sonn ndax ku xam sëñ Saliou ak taxawaayam ci alxuraan ak li mu mokkalal alxuraan ci ay nit ak euh, li mu samp ci ay daara mm-hmm. kooku wooteel ko ci jaar ci alxuraan dana yomb mm-hmm. ñi jaar ci daal ji donc boo ñu wuy woon amut fuñ amut fuñ leen mën a dugal amut fuñ xaj <laughs> waxuma la nag ay soppeem waxuma la ay taalibeem kon loolu moom jàpp naa ne nañ wax ne rek sëñ wu nañ ko tuddee buñ ko waxee képp koy murit xolam xolam dana yëg ci biir xolam ne sëñ Saliou lii ñu ko jox ab ma te bu boobaa dana jàpp ne moom moo war a wuy jël sëñ Saliou kon murid yëpp yaakaar naa danañ ñëw ci bés bi incha allah ñun nag ñu ngi koy waajale nañ ko daan waajale incha allah buñ ci àggee euh, ay délégation dana jóge fii ñëw nañ ko daan defee ànd ko génn ba nga xam ne ba lépp àgg ci euh, jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.